xale dëkk bi yépp ne dañuy dem yonent bi xool ñi ci 12 ans lañu toll ñi ci 15 ans ñi ci 16 ans amu ah, ne toog leen fi yéen ngeen wettali seen yaay yi am na waay feebar ci dëkk bi toog leen fi benn xale daanu rek xëm ñu di ko sotti ndox ba mu yeew mi ngi tudd na Umayr bun Abi Waqaas moom ak Saad bun Abi Waqaas ñoo bokk ndey ak baay mu ne yonante bi mu ne man mënuma la gis ngay dem ma bañ la toog lu la nar a gaañ na dal ci man foo nara a dee man joxe naa sama bakkan yonte man mënuma des fi ci dëkk bi buñ may watat ci àll bi danaa dee ci désert bi boo demee bàyyi ma taw danaa màng àll bi ba xiif ak ma rey ma waaye duma des fi moom moo na umayr umayr mooy umer bu ndaw boo demee ci grammaire moom la ñu tuddee tasxiir dàmmu njëlbeen fata aji ñaareel andi yaaw tasxiir ñu ne umar nga ne umayr umar ndaw xasan nga ne huseyn xasan bu ndaw yonent ne ko ñaata nga toll mu ne ko 17 ans mu ne ko dénk naa la mbiru ndox mi ndox mi ñu la sotti ba nga ximmalee ko dénk naa la ndox ma saxaaba yépp yàlla di nàndal nangu nga ko mu ne nangu naa ko kon kii lañ njëkkoon a def ministre hydraulique jamono Seydina Mohamed kii moo yoroon ndox yi Medina yépp ci gëléem yi ci nag yi ci fas yi ci mbaam yi ci berkele yi ci ganaar yi kii moo yoroon lépp lu ñuy naan keroog bésu Badar ku naan kii moo la jox seetal jàkka ji ana kawar bu weex hmm? kawar yëpp dafa ñuul làmp yëpp mi ngi tàkk waaye munta leer kawar gu weex nekkul ci yëpp kawar gu ñuul lañ ñépp ay umayru lañ kenn amul foo teg sa tànk ci biir jumaa ji làmp yëpp taal nañ leen waaye seet ni mu lëndëmee du lëndëm de ñuulaayi kawar yi la xale yi gëmuñu kenn ku dul yàlla bëgguñ kenn bu du Seydina Muhammad amuñu benn par parloo bàyyi Baay mi ngi ci taalibe Touba mi ngi ci taalibe Léona Niassène mi ngi ci na Gunaas mi ngi ci taal taal yaa ngi ci xeet kër gu nekk mi ngi ci waaye li leen jógloo mooy majdul islaam fi tawhidil kalaam tedd ngay lislaam mooy benn la lislaam ñaata yoon lañ gis Mawlana Cheikh Ibrahim mi ngi lëngoo ak sëñ Fàllu bañante nekk na foofu déedéet déedéet nitu yàlla yépp benn la mbooloo mi ay muqaddamu baay ñu ngi fi toog ay muqaddamu tiwaan ñu ngi fi toog njabooti Mouhamed Saïd Ba ñu ngi fi toog lan la mooy majdul islaam fi tawhidil kalaam ndeka tedd ngay lislaam mooy ñu bennoo bu ñu bennoo la dañuy tuuti bu ñu bennoo la dañuy xeebu waaye nii ngeen defee bu ngeen ko bàyyiwul wallahi li ma waxoon deux mille cinquante dana fekk lislaam yegg na ci deux milliards et àddina bi yëpp te loolu yàlla dina ko def fu mu koy defee mooy yéen ñii mbir mi du ko jàng ci alquran ahankay ci la bokk mbir mi du ko jàng français ahankay ci la bokk mbir mi du ko jàng arab ci la bokk waaye mbir mi at taqwa haahuna yonent dafa dóor dënnam mu ne lii tax nit ki doon nit buy sangu du ko summi mooy jikkoom te ñi kenn ci bonul jikko xale yi toog kenn ci xamul lan mooy póon kenn du tux ci ñi sàngara bii xew ñu naan ko jakarta kenn du ko naan ci ñi ñi fi toog ñépp ñépp dañoo woor ñi fi toog ñépp dañuy julli kon lii ku mu doy lan moo lay doy yaa rabbi allah yàlla na yàlla guddal seen fan umayru boobu ni ko seydina muhammad gërëmee na muhammad gërëm leen yàlla may leen alal ba ngeen doyle may leen borom kër yu baax may leen soxna yu baax kër yu rafet oto yu nooy yàlla na ko yàlla def yàlla def na ko waay allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa muhammad rasulullah sallallahu alayhi xale bii rek lañ may mu dem keroog mooy Umayr boobu 17 ci la toll ndox mi yépp xale bee ko yore woon ndeysaan ba ñëwee ba Badar Badar benn àll la am na benn ay teen mi ngi foofa la yonent bi wàcce ay bagaasam am ku ñëw ñu ko tuddee Habab bun Munzir Habab bun Munzir ñëw ci Seydina Muhammad ne ko fii nga wàcce nag mu ne ko fii dafa jaadul ma wàcc fi mu ne ko ahankay bu fekkee asamaan moo la jox ndigal pour nga wàcc fii baax na loolu mënuma ci dara waaye bu fekkee sa xalaatu bopp la ah fii de gënul de xare dangay ngay fexe nga am ndox moo naan fas yi di naan kéeféer yi bu ñu amul ndox dañuy teel a xoox waaye boo bàyyee ndox mi sa diggante ak ñoom ñu ëpp la doole jël ndox mi naanoo say jur naanu fan nga jëm mu ne mu ne ko ne amal fikru ah xala sa xalaat rafet na lii la oustaz Omar Ibrahima doon junj kilifa dafay nangu déglu naka niñ koy dégloo waaye man maa fi nekk rek déedéet sa xel rafet na keneen am na xel gu rafet ci la yonte yàlla Muhammad jógee dem ba placé wu bàyyi ndox mi ci ginnaawam kéeféer yi ñëw nañu junni junni fas junni géléem ñii na juróom-ñaar téeméer géléem waaye li gën a wér juróom-ñaar téeméeri gëléem téeméeri fas ñoom ñuy junni ci ay nit boo gisee may jaar ci lim yi pour ëllëg téere boo gis nga xam ne kii it wax na woon ñu ormal borom mbind yépp kon dégg ngeen ko moo tax may naan li gën a siiw wala li gën a wér bu ëllëgee doo doon weddikat weddi baaxul déedéet na ngeen ormal xalaat yi kenn ku nekk gëstoom fa ko yóbbu na ngeen ko ormal kon junni nit ñëw nañu ci li gën a wér ak juróom-ñaar téeméeri gëléem ci li gën a wér ak téeméeri fas li doole la de julli di keroog li gën a siiw juróomi fas lañu amoon juróom fas dajeek téeméeri fas li gën a wér ñett fas benn bi Seydina Aliyu moo ko waroon karamallahu wajahu benn bi Miqdaad bun Amr beneen bi Marsad al-Ghanawi moo ko waroon ñett fas dajeeg téeméeri fas juróom-ñaar fukki géléem dajeeg juróom-ñaar téeméeri géléem ndax doole mi ngi fi waaye ñii qualité la ñu andi ñii quantité la ñu andi qualité toujours mooy gañe quantité yàlla anti anticipé woon na ko te xam ngeen anticipé mooy li ngeen bëgg a def fan yi yéen ñëpp yàlla na ngeen atme yaa rabbi anticipé yàlla nettali woon na badar fekk Muhammad ñëwagul mooy wal aadiyaati dabaxan nee bés a ngi ñëw Muhammad ay fas yu néew ñu ngi daw ba seen biir di xuut xuuti tànk yaa ngi bu deretu yéeféer yi tey tuutil nañ la waaye ëllëg sa benn fas dana dóor seen téeméeri fas wala aadiyaat dabaxan giñ naa ci fas yi torote gis giñ naa ci fas yi jaab giñ naa ci fas yi cal duma la mos a bàyyi mukk nga torox duma la gàcceel duma la yàq wala aadiyaati giñ naa ci fas yi bu ñuy torote wal aadiyaati giñ naa ci fas yi bu ñuy jaab wal aadiyaat giñ naa ci fas yi bu ñuy ràmb dabaxan ba seen biir di xuut xuuti ngir seen daw gu jéggi dayoo li koy doy na dembe fa asar na bi naqaan poussière yi danañ jóg ba doo xàmmeti ñii ñooy jullit wala ñii ñooy kéeféer yàlla ne dinaa la defal bés ci kanam ci ginnaaw la badar sooga am kon yonente bi yàlla dëggal na li mu ko digoon yépp sallallahu alayhi wa ah am benn saxaaba te mooy saad bu muaz ne nañ defal yonente bi tànt ci kaw bu xare bi neexee ñu ñëw mu ñaanañu bu xare bi naqadee ñu daal di koy rawale mhm. kilifa mënta daw kilifa buy dee tamit dafay dee ak honneur moo tax bu yàlla maye kilifa da koy danga koy jegeñ di ko protéger ni nga ko bëggee ba koy raamal am na ko ko bañ rey ko rek la bëgg buñ ne kenn ku nekk na rey noonam teel sa xarit nga denc ko sa xarit la waaye noonu keneen la kon na ngeen di jegeñ kilifa yi di leen dimbali bu baax a baax ni nga ko bëggee ba jébbal am na ko ko bañ ba def ko bëgg a yongaan waaw saxaaba yi ba ñuy génn bari woon nañu waaye ba ñu yegg si Badar boobu 313 lañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett mooy jaysun bi xaadimu rasul doon wax nee na ñooñu ñëpp seen bakkan teeru na ko ba muy wàcc ca ca tund géwél bi yal na yàlla fay xaadimu rasul kere ba muy génn réew mi di liggéey li jàll ci 18 safar bi ñépp a ko daw moom kenn connoŋ ci biir ay nasaraan ñu ngi war ci fas sol seen casquette yi gàddu fusil à baïonnette kenn bëggul woon keroog bokk ak moom wala jegeñ ko nee na keroog waa Badar yëpp dañoo ñëw di ko feelu si yal na yàlla fay jëmm jooju alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin julli di ëppoon nañu lii waaye ki nekkoon naa fekk ba te mooy Abdullah bun Ubay bun Salul moom moo teqi mbooloo ma delloog moom ñett téeméeru naafeq yu góor ak juróom-ñaar fukki naafeq yu jigéen yonent bi sonnoon na de ñett téeméeru góor ci dëkk ba ñépp dañ ko kontoon waaye di feeñal ngëm ci moom juróom-ñaar fukki jigéen ñépp dañ ko weddi yoon waaye ñuy feeñal seen mbëggal ci moom moom Abdoulaye nu Ubay benn bés yonent bi romb seen seen pénc mi ngi war ci mbaamam xam nga mbaam moom mbaam la rek boo ne ko foo daaneel sa waaja mu ne fa mu doon gàccewoo mbaam bu naanee ci teen sa den yàlla na teen bi màbb sama yoon moom xalaatu na dana maraat hmm? mbaam bi dafa dafa romb nit ñi taxaw yonante bi di nuyoo salaamaaleykum salaamaaleykum salaam mbaam bi tàmbalee saw moom naa fexe mu daal jël lafu mbubba mi ñu ne kaala mu teg ko ci ba bakkana hmm, ne ba ma yàlla bindee ba léegi man mbaam bu sawam xaswee ni bu Muhammad man mosuma ko gis <laughs> mbaam kay mbaam la rek waaye ngir nekk naa fekk lii rek la waaye li ma waxoon sànq ngeen bàyyi ko xel tos nu mu tilimee noonu lay yokkee dugub nitu yàlla noo ko gën a yekkee lu bon muy gën a muy gën a tedd rek muy gën a tedd rek yàlla fay yàlla waaye teewul moom def na juróom-ñett fukki attentat ak ñeent pour rey Seydina Muhammad 84 attentat moom Abdullah bun Ubay bun Salul def na ko pour rey Seydina Muhammad waaye ba mu dee Muhammad moo ko sang moo ko jullee moo ko wàccee ci bàmmeela yàlla na ko nag lii ëpp na déedéet wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan li wala tusalli Muhammad lii ëpp na waaye wala tusalli ala minhum bul julleeti kenn ci naafeqi maata abadan ba faw wala taqum ala qabri bul taxawti ci bàmmeelam innahum kafaru dañoo wedd wa maatuhum faasiqun dee nañ fekk ay kàccoor lañ bu ma la gisati nga defati lii de waaw yàlla ne ko boo ko jullee woon kàbbar juróom-ñaar fukki yoon du ma ko jéggal mun na Jibril bu ma xamee bu ma dolli yoon mu jéggal ko ma def ko kii moo baax ku la bëggoon rey ba ñeent juróom-ñett fukki yoon ak ñeent yàlla ne boo ko julli boo ko kàbbaroon juróom-ñaar fukki yoon du ma ko jéggal mun naa ah, bu ma xamoon ma dolli juróom-ñaar fukk yi pour yàlla jéggal ko kii mooy Seydina Muhammad ci la ñëwee ñu defal ko tànt kër ci guddi go yonent bi dalul déedéet mi ngi sëgg mi ngi sujuut mi ngi jóg yaa xayu yaa xayuum yaa xayu yaa ba kaalam daanu na ñetti yoon Aliou nee na saa su ma ñëwee ma fekk kaala bi daanu ma tegal ko bu mujj bi na Abubakar ne ko kafaaka toy na la yàlla nangu na la ci la muuñe mu génn mu ne wallahi li nga wax doy yàlla loolu la wax sa yuhzamul jamu wa yuwalluna dubur wala fa yuhzamul jamu wa yuwalluna adbar daañu dem ci la tibbee suufam boobale yaa xayu yaa qayyum sànni leen ko lii moo leen fàtte ci lañu al ko benn yoon waaye ñale ba ñëw ci kekk lañu nekkoon kekk ci la fas mën a dawe fi bi nekkoon saleñ la boo àkkere sa tànk dugg ci biir yàlla def saris kamara mu wàccee taw kekk ga ratax ba boo àkkee daanu salañ ba sàkk nu la neex nga doxee subhanallah service camarade la euh, fan nekkoon kekk ñoom ñu kontaan yàlla tawal ko ba mu doon ay mbarastan boo àkkee daanu fi nekkoon salañ sa tànk di putax mu laa di sàkk ngay dox nu mu la neexee ah ñu taxaw na corps à corps face à yi taxaw lii mooy njàmbaar am ñu génn fële ci waa Makka mooy utbatu bun rabia ak shaybatu bun rabia ak seen doom te mooy walit ñu ne aja kaay leen ànd ak yàlla kaay leen ngeen gaawe ñu léegi ñu jëm safara wala ñu gaaween léegi ngeen jëm aljana comme loolu ngeen wax ku dee ci yenn aljana ku dee ci ñun safara gaaw leen ngeen gaayo ñu léegi ñu dem safara wala ñun ñu gaayo léegi ngeen dem aljana comme loolu ngeen wax kaay leen Saad bun Muaz génn Mas'ad bun Umaru génn As'ad bun Zarara génn ñu ne yéen waa fan ngeen kii ne man ci lansaar laa bokk Aws kii ne man ci lansaar laa bokk Hazraj ñu ne déedéet suñuy mbokk lañ soxla Quraysh comme ñun deret comme ñun lañ soxla ci la yonent bi gestoo ñu ana Hamza ko maa ngi ni mu ne ko Hamza yi ak sama baay yenn bokk benn baay kon sama deret nga mu ne ko mu ne ko bu ñu delloo ci suñu meen buñ delloo néegu ndey wax ba bi jur sama yaay ak wóoy bu bi jur sa yaay ñoo bokk ndey ak baay kon bu ñu delloo ca meen sama mag nga ndax suñu ñaari maama bokk ndey ak baay ci néegu ndey bu ñu delloo ci gaño sama baay bu ndaw nga kon acca génnal mbokk du foyekaay déedéet mbokk du foyekaay fonk leen seen mbokk fonk leen seen mbokk yi ni nga def ba jubóog mbokk jàmbur boo ko defee nga jubóog say mbokk ku jokk mbokk yàlla jokk la ku dagg mbokk yàlla dagg la ku la ne bàyyil say mbokk téye na ay mbokkam na ngeen lu ngel la ci la génnee ñëw taxaw mu ngi daagu daagu yi neex mu ngi daagu daagu yi neex yonent na ko lii nag sa daagu bi ëpp na de waaw ah, mu ne ko dama bugg a tiital yéeféer mu ne ko kon dollil ci la daago daldi di maaj ba yonent yàlla Muhammad kontaan hmm? man tam kontaan naa ci fête indépendance bi passé man kontaan naa ci ma gis armée Sénégal am benn commando mu jël mu jël paaka commando di di daggal làmmiñam te dara tuuruwul ah, ma ne ndekk ba léegi eh, góor ñaa ngi des ci biir Sénégal ah? xam naa sëtu buur ko mën fen la ah wala mu bokk ci waa Casamance yi fooñi wala ci bulu fi ah waa ñu sant fay moom bokkuñ ci moom waa mi ngi yore paaka di dox ci digg tëli ñu ngi dagg seen làmmiñ ñu ngi koy xiiti paaka yi ah man kontaan naa daal ma ne ndekk suñu jàmbaar yi ba léegi am na ay jàmbaar hmm, cheikh fexeel ngeen bàyyil ngeen bëril tul yooyu waaye soldaar mel ni benn pataas rek wala benn tomate farce <laughs> ah. loolu baaxul loolu baaxul nañ def ren daal man bëgg naa loolu dafay tiital noonu ah, boo demee dëkk boo xam ne dañuy màttante ah del si ngay wane say bëñ waay ñu xam ne yéen am nga loo màttee <laughs> ah na ngeen ma waxal général bi ne kontaan na euh, commando yi ni doon def seen làmmañ ren ci fête indépendance bi waaye nag boo ko essayé te doo ko ci suuf nga jëm de <laughs> yéen ñëpp ree ngeen kontaan ngeen li rek laa ci bëggoon seen xel yi dellusiwaat ëllëg euh, bu ngeen di xalaat yi def leen di soulager def leen di soulager mooy bañ demee saañ ba góor gi di wax ñun ñëpp nii lañ meloon nii lañ meloon ngeen koy netti seeni sët seen sëtaat yal yàlla fay leen aywa Hamza génn taxaw ndeysaan mi ngi yore benn dunq dunq ki bànjooli mu def ko mu mel ni médaille mu dox ci kanam Seydina Muhammad Seydina Aliou tamit génn Aliou Aliou ku yéeme la Aliou ku yéeme la Aliou ku yéeme la ku yéeme la da nga doon foog ne Aliou buy dox dafay bonde ngir njàmbaaram Aliou subhaanallah kii mooy maamu mboolem chérif yi mooy maamu Cheikhu Tijaani macha allah mooy maamu Cheikh Abdul Qadir Jilani imam Ghazali Hasanul Basri abu yazid bastaami ngonk yooyu yëpp ci njabootam lañ bokk ak kan bun haris bun abdul muttalib mooy taawu maamu yonante bi taawu kooku ci lañu ñu génnee hamza dajak saybatu daal di ko rey aliyu dajak walid bun utba daal di ko rey ubaydatu dajak uqbatu seen jaasi njuuyoo kenn ku nekk gaañ sa morom Hamza daal di tëb ak Aliou jekkalikal jël seen mbokk delloo ci Seydina Muhammad yonent yu daw ñoo fóon ko ne ko mbokk sama lan la am ne ko sant naa yàlla comme sama deret mi ngi tuuru ci dimbale la ñu ànd jaamu yàlla sant naa yàlla njaboot gaango xam naa du duñu xiif fii ak yaa ngi dund duñu mar fii ak yaa ngi dund bàtt naa la njaboot ba mbokk yi ndax lii mi ngi xew tey da ngay ànd ak sa xarit mu faatu alalam yépp nga teg ci loxo ñëw takk ngoro jabaram ngi nga mën a lekk alal ga bu la dénkoon mbaam bu la dénkoon fas nga ne mbaam la ma dénkoon bu la abaloon suuf nga jël suufi jirim yépp daf la ko jaayoon daf la ko tayle woon yàlla bi ko yóbbu du la fa bàyyi ni mu demee bàyyi la suuf ba nga politique nga yéeg wàcc njublan luubal benn nangu suufam sa da nga dee yow tamit keneen def noonu sa njaboot leptoo fayto kamaatu diinutu daan nit dénk la alalam mu faatu nga jël alal ba million la woon nga ñëw jox leen cinq cent mille nit bàyyi la ay doomam nga lëjal leen ba kër ga tas nga jaay kër ga nit dee nga ñëw takk jabaram ne takkoo la da ngay wettali gone fekk sa koll rek sa koll rek lekk rek naan rek bu jeexee nga fase ko xaar ba si keneen ëllëg yooyu nga dee bàyyi keneen jël sa bos rek yal na yàlla dimbale yonent bi sallallahu lii la dund benn lii amee nag saxaaba yi ci lañ tamponte ñuy dóor di dóor di dóor di dóor ba julli di rey ci ñoom juróom-ñaar fukki nit jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukki nit julli di fukki nit ak ñeent ñoo ci daanu juróom-benn ci muhaajirin mooy waa Makka yi gàddaay ànd Seydina Muhammad juróom-ñett yi lansaar mooy njaati ko dalaloon badar saxaaba yu yëpp dañ ko teewe ba mu des ñett nit ñooñ teewe wuñ ko ñett ba ko ñetti moo ñu yàlla bëggal aljana ñooñ teewe ko ak kenn ci lansaar ñooy ñan naa Ousmane teewul badar soxnaan dafa feebaroon Seydina Muhammad ne ko may naa la congé demal nga toppatoo sa soxna kon jabar du foyekaay yéen a àndoon démb di bànneexu bu naqar dikkee bokk leen ko mënoo ko teggil feebar bi mais na nga solidarité ak moom ba mu yëg ne kii bu ko mënoon a sempi ni dëkkoon mu sempi ko waaye jigéen di ko gàccel jigéen di ko toroxal jigéen di ko ayibaal di ko tiiñal wóor na la wóoru la fase naa la rëbb naa la eh, du lu baax déedéet lu baax na ko xupp ba mu tiit bu fekkee ku yem ci foofu la dañu ne lislaam dafa may jigéen nañ ko dóor déedéet yont dafa ne sa socc sax baax na boo xàccee mu daw rekk nga bàyyi nga daal di giif wala sër bi ngay sàngoo nga laxas ko comme xale li ñuy def làngaa buri buri boo ko laalee bopp mbopp rek mu da wooyu mu ngi may rek nga lay téyewaat waaye wax na nga jël ay yat di sànni ay walis ci biti déedéet bu leen def loolu doom nawle la lu mu gis baayam di def bu ëllëgee moom lay def moom lay def yonent bi newoon na yaay Aïcha boo meree man danaa ko xam boo bëggee danaa ko xam mu ne noo koy xamee mu ne ko bés boo bëggee da ngay ne giñ naa ci wallazi baasa muhammadan bil haq giñ naa ci yàlla mi yónni seydina muhammad waaye bés boo meree da ngay ne wallazi baasa ibrahim da ngay bàyyi da nga may ne ñukk fii ne yàlla mi yónnoon ibrahima waaye teewul yonte bi nga koy muñ mus nañu togg ruy naa Muhammad mu ngi toog yaay Hafsa ak yaay Aïcha ñu ngi lekk seen ruy ba muy jeex kenn ku nekk bu ñiitee teg ci làmmiñam daal di ko ne tareet ci jëw moromam ñu ngi kaf ndax ay xale lañoon ñoon ci zahir yaay Aïcha daal di lekk au lieu que mu def ko ci làmmiñam mu ne ko tareet ci jëw Seydina Muhammad yaay Hafsa ne ko tareet ci jëw Seydina Omar daf ko gis daal di tiit ba bëgg a xam ne yéen da ngeen da ngeen bëgg a alku yéen ngeen di def li mu ne ko hee Omar sa sa dëgëraay yóbbu ko sa kër fa la waay <laughs> bàyyi man samay soxna waay ah, bu ñu fowut ak man kan la ñuy fool yow da nga nangoo gis Aïcha ci mbedd bi wala Hafsa muy foog beneen góor mu ne ko yàlla te mu ne kon foog ñu foo ay gone lañ bàyyi leen ñu foog man hmm? moo tax yenn temps nag nga nga toog tuuti ne ko andi sa tànk ma bësal la nga bos bu baax kay yenn temps euh, <laughs> boo génn nga jënd euh, ay dibe ay jus jox ko bu demee bay bëgg a naan nga ne ko ànd ma ubbil la mu nga ubbil ko mos tuuti daal di ko jox mu naanaat jëlal wantaay upp ko sax jàmm rek lay ànd du doya di ci yow du xeebeel ci yow déedéet yonent bi dafa doon balal ay soxnaam kon dégg nañ kàddu gi yàlla nañ yàlla mooy xol boobu yàlla nañ yàlla mooy xol boobu jaay Seydina Muhammad Ousmane ñëwuloon Badar déedéet kon li tax moom mu tardé Badar te yonent bi nangul ko yoolu Badar kon ndeke eh, soxna du lu tuuti nañu fonk jigéen ñi nañ leen sagal nañ leen dimbale nañ leen ormal bu ñu leen gàcceel bu ñu xawi seen sutura li nga xam ci moom ba boo ko waxee àddinaam yàqu am na ko xam lu mel ni noonu ci yow bu ko waxee sa àddina yàqu kon ñu muñalante ñu muñalante aywa ak kan kan moo teewatul mooy Saïd bun Zayd moom teewul woon moom yoon daf ko yebaloon pour mu dem déglu ko ay renseignement ak kan talxatu bun ubaydallah kii tamit teewuloon dañoo demoon pour andi ay renseignement te ñoom ñu ngi bokk ci fukk yi yàlla bëggal ci aljana bañ tee saxaaba yi bañ tee kéeféer yooyu ñi dee dee nañu ñépp ñu daal leen sànni ci teen ba ba mu des umayta bun xalaf mooy ki doon teg xeer ba ci dënn bilaal kooku moom balaa ñu yëg si fekk nëb na bañ koy yëkkati mi ngi mi ngi bàyyante dañoo sotti suuf ci kawam ba léegi lii am na de ñu bëri ci morgue yi boo demee day fekk ñu ngi bëgg a bàyyante ñi ñiy lekk yi riba yëpp foofu la jëm jëm góor jigéen yi tamit noonu dañuy teel a bàyyante bu ñu leen teelu suul rek dañuy nëb di xeeñ bàyyante bàyyante mooy jigéen bi ànd ak moroomam jigéen wala góor gi ànd ak moroomam góor day teel a bàyyante bu dee dafay nëb te suulaguñ ko góor jigéen dafay nëb te ko naka noonu lekkkat yi riba noonu dafay bàyyante buñ ko teelul dimbale rek dafay bàyyante moo tax ñuy jël xobu siddéem di ko def ci ndox pour sangee ko ko der bi bañ a bàyyi bu biir bi bàyyee deru kaw yi bañ a bàyyi lii moo tax ñuy jël siddéem di ko def ci ndox mi ñuy sangee néew képp kuy dund ci loterie tamit noonu loterie nag bala la neexee tuddee ko loterie nationale muy PMI muy xoos-xoos muy xip xef xippi muy cohorte yépp ci la bokk moom ak sàngara ñoo bokk benn maqaama waaw naankat baa ngi ñëw ci jàkka ñu nga ne acca ci biti am na ku nekk ci biir mooy sàngara kayit kayiti PM yaa ngi ci poosam kii sàngara bu tooy la yore sàngara bu wow nga joxoñ waxuma la yow de <laughs> taxal ma joxoñ ci kaw boobu bu tooy la sàngara bu wow ka sàngara bu tooy bi moom la xet bi topp muy daanu waaye ki nekk ci biir jàkka ji kayit baa ngi ci poosam mooy PM numéro set numéro 8 numéro 12 mi ngi ci poosam mi ngi ci poosam fa la jóge mu ngi ci jàkka ji bu fa jógee fa la la jëmaa te yàlla sàngara la boole ak loolu innamal xamru wal may saru wal may saru sàngara ak loterie ñooy benn képp kuy jënd loterie xamal ne yàq yi naan sàngara yenn a yem benn maqaama yowmal qiyaamati ñooñu tam ku ci dee dafay dafay décomposé balaa ñu ko suul lii moo daloon umayata bun xalaf bilaal moo ko rey ndax moo doon jël xeer di ko teg ci dënn bilaal keroog moom moom sànniñ ko ci teen ba moom ñu ngi ko suul fa mu tëdd foofu la keroog aba jahli di noonu yàlla ba keroog la ibnu mas'ud dagg boppam andi ko seydina muhammad mu ne ko moo daggoon sa nopp ba nga jàng quran tey yow nga dagg boppam démb ci tey moo tax nit kiy def lu bon bàyyi ko ci moom lay delloo moom noppam la daggoon ngir jàng na alxuraan mu dégg tey moom boppam la dagg keroog dégg ngeen li jàngkat bi jàng mooy Seydina Idris yàlla keroog wàcce na ay malayka wallahi malayka yooyu Jibril moo leen jiitu woon mu ngi waroon benn fas ñii ne góor la ñii ne jigéen la suñu boroom xam-xam ne amuñu moroom déedéet Baye Niass ba muy bind Maulana Cheikh Ibrahim dafa ne fas ba jigéen la alxaji Mali bind ne fas ba góor la ah parce que fas ba dund malayka lay dund dukkur du jigéen Baye def ko defal damiru jigéen alxaji Mali defal ko damiru góor ana lan la nàddante wone ne dund malayka la yore du góor du jigéen est que dégg ngeen ko Baye ci loolu la baa tala al badru yow badrin bi badrin fii xuzaatin humu nu jummu rimaali bàyyi lii la wax ne tala al badru sang ba dikk na yow ma badrin bésu badar bi badrin ca badar seeta ñetti badari duñ benn lii bàyyi nii la waxee kon ki ñu yàlla may dafa mel na ñun xamuñ ko tala al badru yow ma badrin bi badrin fii xuzaatin humu nu jummu rimaali ne ni ngay gisee biddiw ci asamaan si noonu la saxaaba yi meloon ci àll bi man bàyyi lan la teg mu ne atatul amlaaku jibrilu fiihim mu ne malayka yi dikk nañu jibril mi ngi seen biir xaala xaysuum ak xaysuum jiitul xaysuum mooy fas bi jibril waroon te jëkk bàyyi di ko woy booba alaaji maali woyoon na ko lan la wax ne wala taajab wa yowma badrin jaau junudullahi min amril muin alaaji maali mu ne bu mu la yéem ci nuun yàmba mu ne walaa taaja bul yéemu wa ma badrin bésu badar mu ne jaaw dikk na ñan ñoo dikk junuudun junuudullaay min amril mu in yàlla miy dimbalaakoon moo yebal malayka yi ne dem moom alaaji maali yemul foofu de lu mu teg mu ne waxat sami asahaabatu xawla jibrila yaa raysum oqdum bil musuni mu ne saxaaba yépp déggoon nañ baatu bilaa baatu jibril mu naan xaysum jiitul ci xare bi ngay wan sa njàmbaar bàyyi àndee ko jigéen alaaji ma lay àndee ko góor wone ne du góor du jigéen waaye dund malayka la malayka du góor du jigéen ki ko waroon di jibril ni mu mel noonu lañ mel yal na yàlla fay mag ñi te alhaji Malik mu ngi wàcc liggéey 1922 te bàyyi mi ngi bind téere bi 1930 boobu mu ngi ci fanweer mu tuddee ko laamiya te laam mooy 30 fekk baay ci 30 ans la toll ñaata 30 ans moo fi nekk kan moo mën a bind benn bayit ah ah waa kay na ngeen góorlu bëgg sa kilifa mooy la mu doon def nga jéem ko baay ci 30 la bindee téere bi muy nuurul basar fi mati xayril basar laam la téere bi jeexee waaye fekk laam lay dund mu ngi ci 30 ans bàyyi mi ngi gane àddina 1900 mu wàcc liggéey 75 kon ba mu amee 30 ans la bind téere bi fekk Maodo Malick faatu na juróom-ñettaat waaye seet seen kàddu doon benn te dëkkuñu woon fenn kii saalum saalum la këlee waalo waalo la nekkuñu woon ci benn bërëb waaye seet rek la këlee wax loolu la kii wax wone ne du góor du jigéen waaye malayka bi ko waroon di jibril ni mu mel noonu la mel moo tax yàlla ne wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum la bu yàlla dikkuloon kër bi su badar dana métti de iblis dafa jël melokaanu nit ñëw jiitu kéeféer yi doon benn général bu kaay leen ma wol leen ni ngeen di taxawee ñoom xamuñ ne iblis la ñoo jiite leen mu ngi xuutu xuutu ñun ah ñu ne arab yi bi xamuñ kañu mooy kaw kaw bi fan la jóg kii ponkal la de seetal óomam yi ndeke iblis la lii waa kaw gi danañ ko xam am na picc bu ñu tuddee ramatu xam ngeen ko piccam ramatu bu demee benn nawet mooy nekk kumba ting ting xam ngeen kumba ting ting kaw bi dafay xonq suuf si xonq digg bi ñuul mooy nekk picc bu ñu tuddee maam sub sub day ñuul kukk beeg bi daal di weex ana lan moo ko soppi allah kon yàlla boobu moo may iblis dafay soppeeku yentaan mu doon nit nga gis ko ne góor la wala nga gis ko ne ko jigéen la iblis moo ñëw di leen wang wangal wa iz zayyana lahum sheytaanu amalahum wa qaala iblis wa fàttalekul iz zayyana lahum moo leen taaralal wa qaala mu ne leen yéen de fi ngeen tollu tey amul kenn ku mun dara ci yéen laa xaaliba lakum mu yawma min annaasi kenn nu leen gàññate wa qaala inni la ko man man maay seen dëkkandoo maa yore seen protocole ah wala maa taxaat fi ataani ba ñaari kuréel yi gisante kéeféer yaa ngi ne jullit yaa ngi ni ba mu leen gisee moom iblis naka sa alaq ba mu commencé di dellu gannaaw ñu ne ko foo jëm mu ne inni bariun ko man dañ naa ci yéen inni ara maa laa taroon li ma gis yéen gisu ko man asamaan laa nekkoon kële jibril la boroom kaala bu werte bale seydinaa jibril la allahu akbar mu ne kii di man jibril la man xam naa ki kii moom kenn moo alagoon mu sam mu luut wa jaal na aliya saafilaha kii la woon dëkk ba doon def góor jigéen ki nuuru woon ba ci juróom-ñaareelu suuf tëb ba waa asamaan dégg seen seq yi di sab seen gën yi di kandang mu walbati ko